demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq ne ñu ngi lay ziar bu baax Mbàkke eh, dañ ci ndigalul sëriñ Ahmadul Maxtar ci bisu màggal gu mag gi xam ne yàgg na ko defal Cheikh Moustapha waaye tey dafa tollook téeméeri at ci hijré bi mu bëggoon nag beneen cachet bu mu am bu rëy rëy rëy moo taxoon mu ne njabootu Serigne Touba gaa moom ñoo koy ñoo ko daa jiite waa dara xulos wande bi yoon dafa bëgg wane ne lépp li yëf Serigne la te looy defal Serigne Touba rek njabootu njabootu Serigne Touba gépp ko war a bokk def loo tax ñu ne mën na woon nag nañ jëm ci kër yépp waxtaan ñoom ñu ñaanal nu digal nu lo loolu rek mooy mooy solo si tax ñu ànd nañ ñépp di di di di di wër. bi sallallahu alayhi wa wax ji mu waxoon ne ñu ñaan suñu borom ci boppu téeméeri at bu nekk mu yónni koo xam ne dana mën a yeesal diine ji sëñ bi nag dund gu barkeel gu tey gi mu dund ci àdduna ba am ngërëmul suñu boroom ak ngërëmul yonent bi mu doon liggéeyal sallallahu alayhi wa dëkk mbiiri Tuubaay di dëkk boo xam ne da ko yàgg bëgg yàgg koo xemem te suñu borom natt ko ci ba dëkk fi lu bari juróom-ñaari rek la dëkk sëñ bi laata nu ko nettali euh, fu ne yóbbu nañ ko fa waaye fu ñu ko mës yóbbu itam xelam mës ta jóg ci dëkk bi ba daana lu mu daan wax sax ba tudd dëkk bi day delloo dëkk bi ci boppam ci moom ilaahi ilaa tuubaaya xut ni wasalliman wajut bimtinaanin sàmmawal tumini tirba yasir rujuwaay li Touba wax mi ni waxi ni adal wara waltatib li sama iskaana yooyu yëpp sëñ bi day firnde rek ne bëgg na dëkk bi waaye suñu borom natt na ko ci bi mu fi jóge nag mu dénkaane woon te loolu ñëpp xam nañ ne sëñ fii la bëggoon a dëkk mu dénkoon Cheikh Mamadou Moustapha ak njaboot gi ngir mu ñu indi ko Touba am lu mu ci diggee itam ci su ñëwee Touba te xat dammut lépp lu ñu songati lu ne danañ ko man waaye suñ yaay fi seen ba loolu amut moom du yàq dara ci liggéeyam waaye ñoom nag seenu liggéey dina am gàllankoor sëñ du taxaw ca taxawaay bu rafet ànd ak njaboot gépp ba indi ko Touba bi mu ko indee nag ak léegi day téeméeri at yi day ñëw ci ndax ama wam sa wam la woon te ñu ngi jëm ci ama wom ta mu junni at ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn Euh, muharram bii nag mooy tombee ak junni at ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn loolu di téeméeri sëriñ bi nag liggéey boobu mu liggéey ni ñu ko waxee léegi dara xeebuwu ca lépp mat na defar njaboot gi defar ñi aju woon ci ñoom ñëpp ñi ci ci aju ñi aju woon ci moom ñëpp ba kenn ku nekk di làmp bu mën a leeral nu bëgg a wane nag ci ndigalu sëñ Ahmadou ak ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha maanaam euh, téeméeri at yooyu njaboot gi fi bàyyi woon ne du ñu ñu yaafus diggante bi fi sëñ bi jógee ba ba léegi téeméeri at yooyu lii la fi murid liggéey li dalee sëñ Moudou Moussa sëñ Fallou sëñ Abdoul Ahad si Abdoul Khadir euh, sëriñ Saliou sëriñ Cheikh Mouhamadul Amin sëñ Siri Makhtar ba ci sëñ Mountakha mi fi ne ak njabootu sëñ Touba gi yëpp loolu nag ci fànn yu bari ndax sëñ bi dafa wax ne loolu du xacc ci bisu màggal gi rek kon nag. nañ ko tàmbalee ji Masalik ca Ndakaaru fukki fan ak ñett ci weeru tubaab yi di ñëw def samedi ñu ubbee ko fa ci suba gi ngoon gi itam ñu def ay waxtaan yu yu yu yaatu yu wuute ci fànnu xam-xam taxawaayu njabootu sëñ bi ci xam-xam maanaam mu njàngalim alxuraan ak njàngalim diine loolu tànn nañ boroom xam-xam yu koy waxtaane ci yoon wi tànn yitam waxtaane itam ci yarub roox maanaam muy tarbiya roox ya muy daari bi yi nga xam ne njabootu sëñ bi dañ koo taxawal ci biir réew mi yëpp ba foofi dem gis fa ñoo xam ne dañuy wut yàlla ñu defare leen fa te ñooñu itam ñoo génn rek defarewaat loolu itam ñu waxtaan ci waaye waxtaan ci itam li nga xam ne moo jëm ci euh, njàngalem euh, maanaam sëñ bi ci ci ci ci ci njàngale mu yees mi maanaam lu demee ne ba ci liggéeyu sëñ Muntaxa bi mu université bi ak école yu mel ni Cheikh mu mu mu Murtala taxawal ak njaboot gi yëpp daal école yi nga xam ne dafa dafa dafa jëm ci njàng mu mu bees mi nga xam ne dootuma jaay si waaye meneen njàng la waaye lépp benn la loolu itam ñu waxtaan téeméeri yi li ci yoon wi def ci xilaafe yi fi jaar yëpp ak doomi sëñ Tuubaa yeeg mën a ne ak njaboot gi waaye waxtaanee itam ci wàllu économie maanaam yoon wi bi fi sëñ bi jógee ba léegi li ñu liggéey ci wàllu économie moo xam ci biir réew mi wala bitim réew loolu itam tànn nañ ay borom xam-xam yu ko war a waxtaanee waaye waxtaan itam ci wàllu environnement ak dëkkuwaay lépp li ci yoon wi def téeméeri at yi lépp rek liñ ci jublu mooy wane ne sëñ bi kat liggéey na waaye bàyyi na fi ñoo xam ne itam lim leen bàyyee jël nañ ko donte sax nag am na yu des waaye lu ci nekk danañ wane euh, ya gën a fés ci nga xam ne nii moom la ci njaboot gi def loolu mooy mooy Masalik bu ñu jógee Masalik it le treize la quinze Louga la ñuy dem Louga nag lañ fay waxtaanee mooy sonn gi waa Kër Sëñ Touba doon sonn ci téeméeri at yi ci benn la jullit ñi ñu nekk benn. di fabandoo di tegandoo loolu ci xilaafa yi fi jaar yëpp loolu danañ ci danañ ci def ay waxtaan suñ jógee Louga yi itam dañuy ñëw njaareem ci ñaar fukki fan ci weer wi ñu jëm muy mois de juillet njaareem nag lañ fi bëgg a waxtaanee mooy xutbatu wam sa sin ndax sëñ bi bu nekkee njaareem ba di fa jóge ba bi mu fa daataan jóge am na xutba boo xam ne moom la mujj génn wax ci mbooloo xutba boobu nag dafa làmboo ay solo yu bare bare bare yu mat a jàngat loolu des na ko fa waaye des na fa waxtaan it fukki at ak juróom-benn yi sëñ bi def njaareem loolu it incha allah des na ko fa waxtaanee euh, waxtaanee itam ak ñëwam ndax niñ ko xam xamee ñëw gi ay wax daana ci jib yu jóg yu jóge feneen ci ñëw sëñ bi Touba loola nag kon borom xam-xam yoon wi danañ ci leeral ñëw gi ni mu demee loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg na waaye nag li ñu tënke ci euh, la ñu def Ndakaaru ak lañ def Louga ak lañ def euh, Njaareem lépp danañ ko danañ danañ fexe ba. bu ñu ñëwee bu ñu màggalee màggalu Daaru Xudus maanaam màggal màggal gi ba ba ca suba sa cérémonie religieuse boo xam ne danañ ci tënk-tënk yooyu fas nañu cee génne itam ab journal boo xam ne day tënk rek mbooleem jëf yooyu nga xam ne euh, ak njabootam ay xalifaam ak njabootam ak fu ñu mën a ne ba ca bitim réew ci wàllu njàngale daal kër sëñ Tuubaa yaag yépp luñ ca mën a tënk danañ ko tënk loolu lépp nag liñ ci jub jublu rek mooy wane sëriñ bi ak wane ak njabootam nekkat dëgg la am na lum mu leen bàyyeel am na lu jëf lu ba lu rëy lu mu jëf waaye bàyyi na leen loo xam ne ñoom it kenn ku nekk taxaw nga ca sa kéemtalaal kàttan loolu daal ci tënk mooy li li sëriñ bi waxoon ne bu ñëwee nañ leen ko jot li sàkku ci seen ñaan waaye déglu ci tam seeni xalaat ndax dafa wax ne ñoom kenn ku nekk ci yéen am na xalaat ci loolu war naa am xalaat ci loolu ak nu mu ñoo xam ne jàpp na ne suñ kon a defee dana gën a rafet dana gën a mat. maa ngi nuyu sama bokki bopp yi teew ak bokki taalib yi di yóbbante siyaare ci sunu kilifa ngeen. tudd yëpp di xam nag mbir mi moom tëgg la Sëriñ Tuubaa moom wax ci moom yomb na yombul Cheikh Mouhamadou mi nga xam ni itam euh, bis bi ñuy waajal mooy ki ko tàmbali woon ànd koog bokkam yépp ànd koog taalib yépp ànd koog jullit ñëpp moom it di ko xam ne wax ci moom yomb na yombul ndaxte eh, loo wax rek bàyyi nga lu kopp kon nag xam naa ni ñu ma ci jiitu tey samay kilifa te mag ñu ci bokk gi mag ñu ci yoon bi ñàkk lu ñu wax ci loo xam ne doyale na jàpp wante rek ñu xam ne eh, sëriñ Modou Moustapha bi muy def lii itam wane yoo wan wan wan rek njaboot gi aw yoon ndax ñoom dañoo dund ak sëriñ bi fu ko waaye di fekk rek fekk nañ ko dem nañ ba gànnaar fekk ko fa te mooy li nga xam ne moom la ñëpp di demoo sama maam demoon na gànnaar moom bokk na ci ñi mën a wax loolu moom Serigne Falilou seeni yàlla def nañu mu fekk leen fi fekk woon nañ sëñ bi gànnaar nekk ak moom jolof ba ni mu nikkee njaareem tënku ci ndigal ba ci dëkk yi ñu sañ ci yëpp ci ndigalam lañ ko defee kon nag euh, mbir la moo xam ne ñun ñëpp dañoo judd rek fekk ko fi. muy loo xam ne njabootu sëriñ Touba gépp ànd di ko def te ku ne xam ne sëriñ Touba ak Touba loolu yi ngay wax ku koy wax da koy askan sama dëkk ba ñuy wax Touba maa ngi fàttaliku suñu ébi bu mbàkki bis mu ma koy wax naan am nay jamono de boobu laay tàmbali sama daara ji ma naan ndax yàlla ngeen bokk ci ñi sëriñ bi doon wax am na ku mas di waxal naan ko sama jamono ngi dikk joo xam ne ku yenooti say tabarte di wë di wërib jàngu baagee ci sama dëkk ba ñuy wax Tuubaa fa nga koy sippi yaakaar naa loolu fi ñu toll nii waaw boo ko xoolee keroog bi ñi ñi njëkkoon a génne ci école ndam bi ci université bi ambassadeur u bi loolu wax dafa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa daa wax ne utlubul ilma walaw fi siin waaye léegi kon mënees na yoo xam ne utlubul ilma fii Tuubaa <laughs> waaw kon loolu dafa mel ne jub na waaye mboolem lu mu ñaanoon rek ñi ngi ciy teg bët waaye nag ñaan yi boo lépp mi ngi aju ci boo xoolee rek eh, junj yi amoon na ci ba muy digle jumaa ji wax suñ Modou Moussa suñ Fallou mag ñoo ñu fi nekkoon ne leen lu ngeen ci man def leen ko ñaan naa ko yàlla ba may ma ko kenn mënu ko teem kon nag li ngeen man lépp def bu ngeen ko deful nag yàlla dañ fa wàcc mbindeef yu ko def waaye ñoom nag ñoom lu sëñ bi bëgg loolaa di seen bëgg ba tax na nag tubaarkal la ku ne xam ne ne ay jafe-jafe bari woon na lool ndax eh, gàllankoor yi tubaab yi doon def yëpp lu ci ne eh, xam gu Seex Muhammadul Moustapha xam Sëriñ Tuubaa ak nag pas-pasam ci moom xam na ne lu mu digle rek donte ci jamono jañ koy wax kenn mënu ko it wóor na ko ne lu mu digle lu manees lay doon te moom it lu koy mayee lu ne jaral nag ko loolaa tax sas yañ ko ci sas yëpp andim raay beeg doog a tàmbali liggéey xam nga ne andi raay bi Tuubaa rek ab liggéey la woon waaye nag nga wëlbatiku nag doog a tàmbali nag liggéey bi nga xam ne moo la tax a te teewul ki ki nga ko fi indil moo ne la nag lépp loo ci xam ne sëfal nañ la ko it boo diggee da ngay fay boo ci duggee da ngay paas waaw kon loolu lépp waaye sëriñ bi jaral loon na waaye li sëriñ Tuubaa def it jar na ko ba tax na nag kon bi moom mooy mooy fàttali boppam xam naa li ci yees nii nag muy ñu dugg téeméeri téeméeri lu at ci bi sëriñ bi dallu say fii ci dëkk bi ko ne xam ne loolu rek mastik bëggam waaye yàlla rek natt ko ci ci ay nattoom la bokk ndax daf ne gimiñ da ko cee dugg am na ñu koy nettali gimiñ di kenn du ci mucc bu kenn doon mucc ma mucc ci waaye mucc ma ci wax sama dëkk ba ñuy wax Tuubaa baa ko sañcee ñaan fa yàlla la ma bëgg ba mu may ma lépp laa fa noppee toog loolu moom xam nga metti na <laughs> dëkk boo xam ne nee la feeg yaa ngi fi dara lu ñu looy sib du la fi fekk loo bëgg dana la fi fekk waaye nag ñun la am nga loo bëgg boo génnu dëkk bi doo ci doo ci jot loolaa ko tax a génn wala koog nag noonu yoo xam ne ñoom it ña ngay jëfandikoo ci moom waxtu bu nekk ba euh, ba tax na ñoo ko gàllankoor it mu mayuñu ko benn yoon mu ñëw Touba mayuñu ko it mu aji mag lu ci ne jéem na ko waaye sottiwul waaye tuwaarkal la fekk na moom yàlla fàggul ko ñoo xam ne ñoo ko wutu ki nekk ci bopp bi di Cheikh Mouhamadou Moustapha rakkam yëpp ak taalib yi yëpp nekk ci ginnaawam moom it yàlla mayoon ko gis-gis bu rafet xel mu rafet moo xam ne buñ tegee fële wilaaya ga loola rek mën naa sottal lépp ba tax na nag Euh, kon lii moom kuñ ci woo ku ne da sant kile ci woo ndax nag jàpp naa ne benn taali bi bu ci génne boppam du am ndax kenn kenn ko kenn ku nangoo génne ci sëñ bi amut ku ci bokk ku ne nag lii ci nga bokk bu ñu àggee ci bis bi ah tubaarkàlla waa jaadu na kenn ku ci ne feddliwaat sag laxasaay ndax nag lu ñuy fàttaliku lu ne sëñ Modou Moussa ba muy wax ñuy fàttaliku bis bi bëgg ñu delloowaat ci ndigali sëriñ bi bàyyi ay teram ndax sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Basir maa ngi koy nettali fii démb am na naarub gànnaar bu ko mas di laaj naan kon ndax mën nga maa seex nu meloon ñoom noonu tur lañ koy faral di wax seex la faral di mu ni ko ni meloon mënu nu meloon de mënuma la ko wax waaye mën naa la cee wax de leen de mën naa la ko cee képp koo mën a doon boo ko ne jàkk xam ne lëfa ngi ci moom lu nekkul ci yow loolu laal man naa la ko ci wax <laughs> loolu nag jaaxal nay wax kon nag noo ngi sant bu baax mbokk yi nga xam naa ni ñoom ñëpp xam naa leen tubaarkàll kenn par kenn seenu bëgg génnul li nga xam ne moom la seeni waajur bëggoon seeni maam bëggoon ko ba tax na ñoom ñëpp dama am kenn ku ci ne ak yow kóllëre goo xam ne yàlla rekk a tax ak sëriñ Tuubaa ak ñi nga xam ne moo leen ñoo leen boole ci sëriñ bi ak manit ki ma boole ci sëriñ bi loolu euh, lu dëgër la lépp mënees ko fa toog di ko fi wax waaye kon fii moom kenn ci ñoom bu dikkoon it lu ma wax nga xam naa ni kenn ci ñoom du ma wax lu génn bëgg sëriñ Tuubaa kon mën naa wax ni lu ma wax rek ma def ko waaw ndax loolu rek may wax waaw maa ngi leen di sant bu baax leen gërëm sas wi leen kilifa gi eh, sas ci liggéey bi yàlla leen ci yàlla defal ndam ndam li nag mbégum ñépp yàlla nañ ko fekkee jàmm te yàgg koo fekkee loolu yàgg ko dundal jaa ngeen jëf wa salaam lam yanxuni daraw naari dunya waqtasani albaaxi bi xayri sunya malakani maa lam yabbi anni waxaadali baqaawo bil manni karaamati kitaabu man rafaani bi ilal jinaani musnafaani karaamati kitaabu man rafaani biilal jinaani musnafaani mahaama maatan xannaha nufuusa wali siwaaya saaxootan fiisa damam nga umpuna mindeef te um na kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak ak ñemu wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk fa moom te bar sàkk ne